asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey dimanche dëppook fanweeri fan ci janvier atum 2022 ñu ngi fii ci Touba Ndorong Kaolack ci CM Serigne Bassirou Mbacké nekk ci wàccaayu ziar bi nga xam ne moom la daara Fatxul Fata fas yéene dem amal ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalifa général des Mourides ziar bi nag ñu fas yéene koo amale ca diwaanu Poroxaan mboolem cellule yu daara Fatul Fataa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi moo xam mbuur la ndakaaru ñoom ñëpp daje nañ fii ci Kaolack àndandoog cellule bi fi nekk fas yéene dem ca diwaanu Poroxaan amal fa ziar bi bi ñu xëyee nag mboole matuwaay yi ñi nga xam ne ñoo yor organisation ziar bi jël nañu ko ngir fas yéene def ziar boo xam ne bu taw fii xale doon moo tax bi ñu ndekkee ba noppi rek ci lañ jublu ci li nga xam ne moom moo di organiser ni nga xam ne noonu la convoi bi war a tëddee ak mboole membre yi ci oto yi nga xam ne moom lañ war a jël moo xam bus yi ba ci particulier yi yabit bagage yi nga xam ne moom lañ fas yéene yóbbaaleel sëriñ bi fas yéene dem ca dëkkub soxna Mariama Bousso Jaaratullaa bi fas yéene faa amal ziar bi ci atum 2022 bi agsee fii ci poroxaan ci kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom Serigne Bassirou di xalif général mbooleem membre daara Fathul Fatah ànd nañ doon benn bootu ci ginnaaw jëwrin gi dugg ngir fas yéene amal ziar bi laataay sëriñ bi du ubbi nag kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu Fathul Fatah amal nañ fa njàng mu yaatu ci kuréel ñu ànd teewlu ko

سكت من الآن زعل سلوكا ووجاني دنيا وورا جمال حبس الفرا لله بجال جلاله بمن الذي أمداه ولمن خير سائبان سباي نويت طريق الخوف هواة جداي ولقد الآجال جميل والمسجد هل يا جميل

لي بكاس الأرض لما نورني جاء بكوني خديما للذي قد فرجا سلمت من الأعداء هدايا salaam الله

أنفاسا غزل

بالآنية كل ولست على المولى بعد قبل كل يسر إلى الجنة خير المعبد ولي أبدى ومن بي

لك الحمد يا فرد يا ليت سبلي هديت بأقدي وأزاوات والفعل يا لي بزين ما صلاتي وبالمدين ginnaaw njàngum xasida gi Fatul Fata jébbal nañ seenub àddiya sëriñ bi ñu xayma ko ci 1 million 500 mille francs fa ak limub alxuraanul karim ak ay xasida yoo xam ne indil nañ ko sëriñ bi jox ko àddiya sëriñ Maguette Thiaw sëriñ Maguette Thiaw mii Kaolack la bàyyi ko lan la si taxaw. waaw Fatul Fatal gi. ok gis nga Nourou Naar di la mi ngi ànd ak Serigne Bassirou Babou. jarbaat ci Serigne Mountakha Babou. ak mboolem xale yi nga xam ne ñoom la àndal waa kër Baye Amar. ñoom ñëpp a ngi nii. ak Kaolack ak Dakar ak Kaolack ak Ndakaaru extérieur gépp a ngi nii. ak Mbour. ak Mbour géej. joxe nañ addi yi toll ci million 500 ju ànd ak limub kaamil ak xasida. xasida xasida yi mi ngi nekk 28 di arafi Touba. kon ngir xett liwaat nu ngir gën noo dimbale ak feeñal cofeelam ak yéeneem ci ànd ak yéen liggéeyam Sëriñ Touba bi loolu mooy li ko tax a ñëw. kon waxtaane woon nan ko ba addiye yëpp dajale nan ko ba noppi damay jaaraat ci tur yi rek sëriñ bi dégg ko ci noppam mu sant leen gërëm leen ñëpp tàllal ñu ñaanal leen kon sëriñ bi bokki taalibe yi daje nañ dajale nañ addiye yi ba noppi jottali woon nañ sam nuyoo terul nañ liggéey bi jottali nañ addiye yi fi ñuy wax daayira fatul fata sëriñ Maguette caw moo ko jiite mi ngi nii di sa jaboot bokk moo ko ba biir baar bi ñëw ak àll amar ñoom ñoo ànd sa njabootu bopp. amiin amiin di siyaar mbokki taalibe yëpp ci turu jëwrin eh, Serigne Maguette Thiaw daayira Fatul Fata nekkoon seem Serigne Bassirou Mbacke ñoo ñëwoon tey ji ziare si woon Serigne Mountakha Bassirou Mbacke fii nga xam ne moom moo di Porokhane muy ziar boo xam ne nag wuute na ak ziar yi nga xam ne daan nañ faral di ko def ndax bi ñuy seetloo bu baax daayira bi biñ ko soseeg léegi ren moo nekk ñaar fukki at yi muy vingt ans yi te suñ borom dogal tamit muy dox ba am ay cellules yoo xam ne fasantikoo nañ ci biir Sénégal ak ci bitim réew ñu ànd kook suñuy mbokki taalibe ci njiitalu jëwriñ Serigne Maguette Thiaw ak sëñ Galaay ba mi nga xam ne moom moo féetoo wàllu Kaolack nekk jëwriñu cellule Kaolack ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Abibou Ndiaye nekk jëwrinu euh, cellule Mbour ak nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Faye di jëwriñu Serigne di jëwriñu cellule euh, euh, dakaaru ak Serigne Mourtala jenn moom mi nga xam ne moom mooy jëwriñu cellule extérieure nga xam ne ñoom waa cellule extérieure am na ku leen fi teewal muy Baye Serigne baabu moom lañ jabal mu teewal leen fi ñu ànd ko mbokki taalibe yëpp rek ñëwoon indi sunub liggéey ni ko mbokki euh, taalibe yëpp di defee ndax ziar dafa bokk ci li nga xam ne dafa que dafay bokk ci yoon wi muy murit bu nekk war na soo toogee ab diir. Euh, ba liggéey sab liggéey boo demee nga jël ko indi ko sëriñ bi euh, ñi ngi ñaan nag ci barkeb Cheikhul Khadim sëriñ mun Mountakha mi nga xam ne ñu ngi ko doon indil mu yàgg fi lool te ànd ak wér te tamit addi ji nga xam ne tamit mbokki taalibe yi dajale woon doon ko indi mu nangul ñu ko te boo fulal ñu ko ci ni sëriñ Saali waxoon ci njëriñul addi rek mu fulal ñu ko barkeelal ñu ko yokkal ñu ko ba lépp luñ ci bëgg rek suñ borom defal ñu ko Fatou Fata nag day daayira boo xam ne euh, ca door ga ca ndoor ga daayira élève woon muy daayira boo xam ne ñu ngi ko sosoon ci biir benn école boo xam ne ñu ngi koy wax CM Serigne Bassirou Mbacke fa lañ nekkoon di fa yëngatu suñu borom def ñu nekk fa ñenn ñi ñu ci bapp am bac waaye taxut ñu bàyyi daayira bi. dem ba am ay yeneen lijaasa a nekk université taxuñu bàyyi daayira bi dem ba am ay ñoo xam ne tey ji ay jàngalekat ñi ngi fi ay informaticiens ñi ngi fi ay médecins ñi ngi fi ay euh, géologue ñi ngi fi euh, xeetu xeetu xeet woo jël ñi ngi ci waaye taxul kenn ci ñoom bàyyi li nga xam ne mooy cosaan yi fu ñu wootee bis moo xam lu mel ne ziar bi wala lu mel ne safar gi wala cant yi lu ñu mën di def rek mbokki taalib yëpp danañ maase ànd ñëw kon loolu moo waroon tey jii ñu dikkoon fii ñu ngi ci sant bu baax a baax nag di ci bëgg lool nag di ñaan sëriñ bi gën ñoo yokkal mbooloo mi te gën ñu koo taxaw te gën ñoo jàpp

dafa wax suñu bopp ndax fu ñu nekkoon rek bu déwénee danañ ko yóbbu fu ko gën a kawe ñi ngi ñaan nag fii mu toll ren ñi ngi ñaan sëriñ bi fulal ñu ko ba su déwénee suñu dikkee mu doon ñettam wala ñeentam te liggéey yi nga xam ne moom la moo nekk ci barab bi fu mu mën di nekk Sénégal rek sëriñ bi dimbali ñu tawfeex ñu ba saa su ko wootee rek ñu mën cee def suñu suñu suñu liggéey kon nag ñi ngi jaajëfal jëwrin di jaajëfal membre yëpp ci turu jëwrin sëñ Maguette Thiaw nii ñu àndee liggéey bi ah waaw moom moom nañ nañ laf ziar bi fëre te jublu nag ci leneen ci yeneen yi nga xam ne moo nekk sunu kanam surtout nag waajalaat ziaru déwén ndax sëriñ bi sànce mi mi ngi daw te benn taxawu ci kenn man particulièrement nag cellule bi nga xam ne moom laa féete muy Dakar moom nga xam ne saa su nekk ñooy kaw moom a soññ ñuy gën di taxaw di jaajëfal membre yëpp rek kon sëñ Fallou jërëjëf ah macha allah ziar bi moom taw fexe na lool taw sant nañ bu baax lépp macha allah sëñ bi yërmandeem gi mu àndal macha allah ñëw ne nañ ñëpp joxe àddiyee moom mu génn ñaanal ñu ñëpp gis ko ñu ngi koy ñaanal daal Mbàkke mu gën fee yàgg ñu yàgg koo ziyaare si. ah ziyaar bi ne moom macha allah neex na trop dugg nañ ci bisimilah rahmaani génn ci alhamdulilah rabbi ñaan lépp luñ si ñaan na ko soxna si nangu. Ah, man la Ndongali Babacar Ndiaye ñu ngi bàyyeekoo Mbour daanaka ziar bi sant nañ bu baax a baax wax yàlla sant nañ bu baax. ndax am na luñ koy suñ jot wax dëgg yàlla xanaa di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha mu gën fee yàgg lool lool te yàgg ñi jiit xam ne liggéey Serigne Touba nii képp la moom amul ndaxaate amul dara pas-pas la ak pësteef comme wax dëgg yàlla defoon nañ ko daaw ñu ziare un million deux cent vingt huit suñu borom dafa ñu tawfeex ñu ziare un million cinq cent mu nekk ak yokkute kon daanaka def nañ ko si jàmm di ñaan tamit déwén mu fekk ñu fi ñu def lu gën a koy lool suñu jot. maa leen nuyu Cheikhouna Diallo Touba Mbour moo fi teewal Abibulahi Touba Mbour euh, xanaa siyaar bi moom di santaan mbokk taal bi yëpp si taxawaay bi am na solo lool di ñaan suñu borom mu fekk lañu ay at yu bëri te jëwriñ ñi nekk suñ kanam ñu leen di ñaanal seen taxawaay rafet na lool euh, muy si seelur yëpp muy kawlax muy Mbour muy Ndakaaru gis ne soññe yi ak taxawaay bi am na solo lool ñu ngi rafetluwaat euh, kàddu yi jotoon jaar si groupe bi ak soññe yi mbokk taal bi ne wuy si nañ war a wuysee te tamit euh, melukaan wi ñu doon soññee tamit wéerukaan wépp wane ne ko yar wane ne yar wane taalibe xanaa ke di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te wér lool te ñun tamit ñu yàgg ka fekke at at mu jot dàq ren ñi ñaan tamit euh, suñu borom defal ñu xéwal ñun ñëpp lépp luñ bëgg liggéey Seexna Ahmadul Xadim ñoo am si lu kaw si njort si barke Seexna Ahmadul Xadim. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii bi nga xam ne moom la daara Fatahul Fata bu seeyam Serigne Bassirou Mbacke doon amal ci kanamu. cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xaalif général des Mourides di ko ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wér ziar bi nag ñu ko doon amal ci dimanche dëppook fanweeri fan ci janvier atum mille 2022 ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Poroxaan. di santaat bu baax a baax mbooleem membre daara Fathul Fatah ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci ziar bi ci mbooleem cellules yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ba ca bitim réew wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.